ak Serigne Touba Mbacke mi suñu yaakaar tey di yeesalaat baax suñu jébbal ci Cheikh Massamba mi suñu bëgg sëriñ bi dem mbégte bu baax na ci teewaay bi xam teewaay bu jàmm yàlla teewaay bu dundal boo xam ne dañ def na ko Serigne Touba daan defar rek ndax suñu borom dafa wax ne xadd kaana rasul xadd kaana rasulullah uswatun hasana defal naa leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy seen royukaay Seydina Cheikh Ahmadou Bamba bi mu dëkkee lépp loo xam ne yonent bi da ko daan def da ko daan def moom mu bindee ay xasida ak ci Seydina moom sallallahu alayhi wasallam mun gës boog mu waaxi ak mu xaddimaat ak muy muy doy na sëkk ci guddi gàmm ku ko jàng rek gàmmo nga leneen loo ci mën teg nga teg ko su loolu passé ñuy bernde di joxe ñam wu am suukar di joxe ndawal di joxe lépp loo xam ne rek koo sax dina neex sa gémmiñ loolu la santaane ci guddi gàmm dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko ni ko sëriñ bi daan defee gis nga Cheikh Amadou Mountakha mi ngi fi kuréelu xasida yi ña nga fa ñu ngi koy jàngee ni ko sëriñ bi daan jànge ak fépp foo xamante ne rek jàkkaa nga mu ci dëkk wala wala juba ña ngi ko fay dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay ñaanal Mbàkke nga yàgg fi da nga koy màggal da saa rawatina waa saa su ne yaa ngi koy màggal ñu lay ñaanal rek nga gudd fan Mbàkke yàlla nga gudd fan maa ngi sax ku la ko yéene yàlla nga gudd fan amiin amiin amiin yéen yal na bi tamit fu ngeen ñoo ngi lay fay di la ziar doole ziar bu baax a baax a baax suñu taxawaay nag moo ngi waral ñu ñëw fii ci jumaa ji di màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bis bi tey ñëpp a ngi koy màggal loolu moo tax ñu déplacé ñëw fii di ko màggal ndax moom suñ ko ñu bari duñ xam sax lislaam fu mu jógee di ko sant nag di sant Serigne Touba Mbacke mi ñu ko xamoon bu baax a baax loolu moo waraloon suñu bis suñu taxawaay fii nii. nga gis àdduna jaxasoo nga dégg ñuy ŋàññi Seydina Mohamed sangub sang yi di ko tedd yow lan nga ciy wax. loolu nag métti nañu torop ba ca kanamu yàlla jooy nañ ko jooy xool nag waaye mënuñu kaa jooy taxaw ci réseaux sociaux di ko jooy nii waaye métti nañu torop torop torop torop ki ko def nag yàlla xam na li mu koy fayee moom xam na ko bu baax ndax yàlla mi ñu wàccal Seydina Mohamed moo ñu ko gën a bëgg fuuf fuuf kon nag moom su demee ba ci yàlla ñoom ñaari dinañ ko diglante ñun nag ñoo ngi koy jooy jooy xol metti nañ ko trop trop trop ba kanamu yàlla. kon nag gis buy joolu mooy buy joolu ci tagg Seydina Mouhamed. dinañ lépp joolu ñu tagg Seydina Mouhamed. ñu yàlla ñu fekk ay déwéni déwéni déwén su neexee yàlla. amiin amiin. lan mooy sa taxawaay fii ci bis bi. Ah, di delloo siyaar xanaa di taalibe bu ñëw siyaar si rek ñëw teewee si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ni ko sëñ Tuubaa santaane rek. ko taxawoon ah jamono dafa jaxasoo nga dégg ñuy ŋàññi Seydina Mouhamed sangu-sang yi te fi ku fi am jàmm moo la ko may ban yëg-yëg nga ci am bi nga déggee loolu. yëg-yëg bu metti am ci naqaru metti ak xol bu tàng jër nag ñàkk cee man dara waaye nag noo koy metti lu suñu xol tey ñaan ci yàlla leen am ndax ab jullit moom ñaan la am comme amuñu doole métti la ko suñu xol la man li ci des nu ñaan yàlla. yaa booy yaa ngi fekk fi ci gàmmu gi yaa ah neex rek di ñaan yàlla di ko fekkee at yu bare bare bare waaw ñu ñaan yàlla neex na torop ñu ngi nii ci jumaa ji toog di ñaan yàlla di ko fekkee at yu bare bare ak moom mi day dem ak ñëw yañ ko ñaanal yàlla mu yàgg fekkee ko at mu jot mu ñëw amiin amiin loolu lañ koy ñaanal ji ci gàmmu gi ah ku ne gis na mbooloo mi murit yu góor yi génn nan murit yu jigéen yi génn jullit yi sax laay wax ndax Seydina Mohamed ah, mbooleem kuy jullit rek tey ji danga ngaa war a taxaw ndax bu taxawee di ngañ di wax Seydina Mohamed ñun jullit yi danoo war a taxaw wane Sëriñ Tuubaa wane Seydina Mohamed doole ji mu am ak ah, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ni mu ko doon. liggéeyeel ak si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni mu nekkee woon ca géej ga di ko tagg jël xasidaam yooyu da ci dagg Seydina Mohamed tey lii fu nit mën a nekk di julli sa xol war naa sedd ndax Seydina Mohamed képp koy wax ci moom da nga yàqu rek ndax kooku moo mooy ngën gi mbindeef mooy sangub-sang yi mooy ki nga xam ne mooy ñàkk sikk kooku mooy Seydina Mohamed waaye guddi Seydina Mohamed a ngi nii jumaay si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ji murid yaa ngi fi di tagg Seydina Mohamed di jàng ci xasida yi di naan kafe di berne kenn du Seydina Mohamed kenn du Seydina Mohamed. Seydina na ku nekk xam na ni bu ñu waxee gàmmu rek Seydina Mohamed moo tax ñu lu lay laaj lan nga xam ci bis bi ak lan nga ci mën a wax daal. xanaa nga xam ne moo nu meññ wan na yoon yu ba indi nu ba lu ñu xam rek sëñ Touba tax. ku nu ànd ku nu suñ Touba tax rek sant nañ si yàlla ak yoonu Touba ak Serigne Touba ak fii dinaa moo amet mu nuy sant guddi tey gii yal na nu boole yi ñun ñëpp àddina ak àllaaxira ñu ne jaajëfal bu baax a baax. loo yëg ci Seydina àdduna rek nag law rek nag ku bañ ak ku nangu Seydina Mouhamed moo fi ne moo fi ne tey moo fi ëllëg loolu rek lañ ci xam. kooku moo dagg bu mi gàcce yi te nit ñi xamuñu lu xew. Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu duggoon nag nga wax ñu ci tuuti rek waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziyaare waaw bis moom neex na trop kontaan nañ si gisoo jumaa jaay nii fees dell ñépp a ngi ñëw di ziyaare ñu ngi ñaan rek ñu teewe ko ay déwén yu bari ci bàcc suñu faalu neex na trop. guddi gi nag ku nekk xam ne ni Seydina Mohamed moo ko tax a jóg ñu la doon laaj nag nan nga ci mën a wax rek. salaamaaleykum soxna si nañ ci jàmm ba ñu guddi gi de xanaa sant rek alhamdulilah sant borom jumaa ji sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw. waaye nan nga ko dundee ci dund bi ndax ku ne xam na ni guddi gi dañ ci jàng kaamil jàng ci ay xasida dañuy jàng ci xasida yi jàng na alxuraan ci kër gi dañuy jàng ci xasida yi bu baax a baax incha allah ngir man ni sant sëñ saali bu wér a wér rek xasida bi nga yóbbu moom jaawartu la ah. waaw dañ ci sant sëñ saali bu baax ginnaaw moom rek lañu am ak guddi gi nga xam ne mooy màggal gi nga xam ne dañ ciy màggal suñu sangu-sang yi muy yonent bi salallaahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne comme leen lu ñu def ci màggal gi ñu jël fas yéenee ba fajar rek. jël gàmm ah. di tàgg wax Seydina Muhammad loo xam ne warul ndax ku fóot la pare mënatoo koo fóot loolu la ñuy wax. ah ñooñ moom dañoo xamul rek li ñuy wax ndax ñun ñi xam moom. ñu ngi toog fas yéenee jàpp yàlla ak di ñu àndal nga xam ne Serigne Touba moo ñu ko dooleelee ba tey ji moom rek lañu am dañ ciy jàpp te yàlla rek tax ñu jàppale ñu yàlla rek tax moom rek lañu am. tur bi naka la. man may woowee. Ndiaye. waaw waaw sant Serigne Touba rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant Serigne Touba bu baax. ndax gàmm gi moom comme ni ko sëñ bi daan dundalee rek waaw taamusoon ay xeste yoo xamante ni jës boobu mooy mu xadimaar ak mimiyar moom lañ koy faranoo si kóor gi incha allah ba fajar boole ko ay salaatu ala nabi incha allah rab di ñaanale suñu borom. Euh, yokk xewal yi te yàggal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu da ànd ak wér. ñi nga xam ne ñi ci si di ŋàññi sangu sang kenn mënu koo ŋàññi. waaw ban yëg-yëg nga ci wax jooju nga xam ne jiw waaw waaw man dama jàpp ni dañoo xamul rek. waaw ndax yonent moom ku ko xam moom waaw doo ko teg dara lu ñaaw ñàkk xam rek waaw ñaan suñu borom tamit mu gingi leen daal waaw ba nga xamante ne loolu tamit ndax yeneen ku ko xam doo ko doo ko doo ko teg lu ñaaw ñaan suñu borom mu mu teg leen si yoon rek. jërëjëf barke borom laa sant sant bu baax macha allah ma ne sant bu baax macha allah sant bu baax waa ñun na dañoo bëggoon a xam tuuti nga wax ñu tuuti ci bis bi na nga ko yéeg. moom mooy ñu sant la ko yàlla suñu borom rek bis moom su ñëwee ñëpp bàyyi suñuy nelaw ñëw ci jumaa ji di ziar ci ñaan moo ñu fi indi bis bi kenn wur cee tëdd kenn wur cee nelaw waa lii mooy Seydina bu Seydina Mohamed kenn wur kee nelaw kenn wur kee tëdd ko am tuuti yàqin dara ci bés bi doo doo nelaw. lan nga ñu mën a wax ci ñi nga xamante ñooy ŋàññi ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu sangu yu tedd yi ñi nga xamante ni mënuñu ko ŋàññi sax waaye nan nga leen mën a wax. ah mais ñaawlu rek bu fi ñaawlu yem di déglu suñu sëriñ suñ si suñ si mu doxa ñun moom ay taalib leen amuñu droit wax amuñu sañ sañu wax dangaa ñëw bett nii mais ñun amuñu sañ sañu wax suñ mu doxa mooy suñu sëriñ di suñu jëwriñ lu mu wax rek moom lañ wax. ñu koy ñaanal moom dañ leen bàyyi ci yonent bi rek yonent bi kenn ko xeexal ñu koy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek. ñu